waaw trompeur ak Feugeula ndeysaan ah Feugeula moo ñu wan ginnaaw pourtant ah, nag nduru na tura ndooma nduru na Feugeula de waaw nduru na Feugeula Feugeula trompeur ndeysaan liwaatoo ñoom ñaar trompeur Feugeula Feugeula trompeur moo ñu wan ginnaaw trompeur ah? moo ñu ginnaaw Feugeula wan ñu kanam fa nga la moosal moo soom xeex bu aw yoon mën na fi am wax nga ko rek da nga ko rek xeex bi déclenché waaw xeex bi ñoom ñaar ñëpp a ko séddoo waaw ne fëgg la fëgg la moo yor ngemb lu weex li fëgg la lañ jàkkaarlool moo nekk nii ndeysaan fëgg laa door góos noonu waaw fëgg laa nga koy soññ sa waay dina génn saako yi dana bër génn ñaari doomi lam saar lañ de non ndaanaan lañ dana bër lam saar fëgg la lam saar ñoom ñoom ñëpp seen turandoo lam saar lañ ay ndaanaan ndongoy bëre Feugeuleu trompeur bii du yàgg abu bii du yàgg waaw Feugeuleu ak ko Feugeuleu sa Feugeuleu bëre bi la bëgg waaw bëre xeex ba la bëgg ko nga am un un mu ngi koy génnee de waaw waaw mais fii de naa filmé waaye arbitre bi ay waay mooy toll ay perkil ba hop hop bu ñu woon du mais arbitre duñ toog non arbitre yi de arbitre kaw kaw la waaw ñii duñ ñii duñu professionnel arbitre Kaolack lañ seen seen digg baaxul arbitre bi waaw waaw ah, ah, arbitre bi day bañ a jonkan gars yi fekk ko fa dal si ko ndeysaan gars yi jàppante nañu baaraam dugal na góos mooy tul ma loolu mooy tul ma aj loxo yi sama xel dem na si loxo ma rëbët loo hop hop hop hop jëlal ma eh, loolu maa la wax loolu waxoon naa ko boo ko bàyyee mu ñëw mbar saa yu aje sa loxo bu ko bàyyee day ñëw sa kaw moo tax bala nga ko bàyyee xamal fi nga koy bàyyee ay yaay jël na ko jël na ko jël na ko tee koy daan da koy daan hop hop hop hop waxoon naa la mbër saa yu ajo sa loxo bu ko bàyyee day def effort maa la wax loolu daan na ko daan na ko waaw lamb décision la waaw lamb da ngay décider ba décider génn ci tee koy daan da koy daan hop hop hop hop waxoon naa la mbër saa yu ajo sa loxo bu ko bàyyee day def effort maa la wax loolu daan na ko daan na ko waaw lamb décision la waaw lamb da ngay décider ba décider génn ci jël bu rëy da ko daan jël bu rëy ma dee ci door maam góor Njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram Njaay réew maa ngi may soow te ku réew soow booba danga siiw bàyyi ndey ak Njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin